mu nekk ci département Malem ah région de Kaffrine di arrondissement di commune léegi nag dëkk bi doon dëkk mun Mountakha nga xam ne maanaam ni ma la mën a waxee mooy dëkk bi nga xam ne moom la mun Mountakha moomal boppam mu xalifatu général kullu murit ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér lool ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam. te sëriñ bi may ko loo xam ne nii jàppal ko boppam dimbale ko ba li mu yéene ci yoonu sëriñ Touba yàlla may ko ko mu mën koo yeggale ba def fi lu raw njortu lu raw lii nga xam ne moom la nit ñi sént ci moom bu loolu jàll nag ñi ngi ñëw fii ci waañ wi waañ wi nag mi ngi nekk fii ci kër Moustapha Seck mooy ki ki nga xam ne moo yore woon micro bu fee ci kër sëñ ba doon jox kilifa yi ñuy wax waañ wi nag ñi ko jiite fii di soxna Ndey Jaañ ak Fatou Siñaan ak ñeneen ña ànd ak moom léegi nag li may def mooy ma jox la soxna yooyu ñu wax la ni ñu waajalee bis bi ak liñ bëgg ci bis bi. seen tur ak seen sant. di leen gërëm ci taxawaay bi li ma ko gisee daal moom sama xol sedd na guy ndax gone yi àndandoo nañ ñu ngi taxaw mag ñi àndandoo nañ ñu ngi taxaw wax dëgg yàlla ni ma ko gisee moom yàlla na jëm kanam bakk sëñ Tuuba ah tuñ ko tuddee nag moom sëñ bi nga xam ne lañ ko tuddee mu sëñ bi jenn wax dëgg yàlla moo tax tur bi day tur moo tax lu ci waaye man rek na ko ñu def bokk naag nag suñu sëriñ bu baax bi Seex Muntaxa Mbakke mi nga xaye mooy suñu sëriñ mi nga xaye ñu ngi koy a toog yàlla na ci yàgg lool te wér barke sëñ Tuuba ñoo ngi ko ñaanal yàgg fi lool te wér barke sëñ Tuuba ànd ak mbég ak ngërëm barke sëñ Tuuba ñoo ngi koy ñaan wane yi nag na ngeen takkuwaat góorgóorluwaat te xam ne kat am ngeen lu gën amut dara mi nam li fi nekk ni wut fenn amut fenn itam kon nag góor góor lu waat takku waat xam ne li ngeen am ko am kenn amul nag da ngay def lu kenn defut takku leen góorgóorlu liggéey liggéey ba mu sell mboolem ku fi ñëw bu leen bëgg lekk bu leen bëgg a naan ku ñëw rek na tedd xam na yéen ñi kat takku ngeen liggéey ngeen dimbale ngeen gan ñi gan ñi dong ci am solo nag. sant sëñ Moustapha Bassirou di sant sëñ Mountakha Bassirou di sant maam nu Mbacke mi nga xam ni moo fi toogal sëñ Mountakha Bassirou ndax mbir mi ban ko commencé ndawoon na lool. te boobu ay tut tànk lañ waaye dañoo wax ne yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am bañ koy doog di commencé egguñu woon ci ay togg ay reer dañ daan defar suñuy beñe defar suñu meew tànga suñuy kafe fanaan ci baas bi ba bët set mbir mi di yokk di yokku di yokku ba mujj ñuy rey ay xar ba yàgg léegi si dañuy jënd ay nag jënd ay ginaar fenn fu nekk waaye jóge fa ci ci ci ci àdduna bi képp ku kuy wax asadu an laa ilaha illallah muhammadu rasulullah rek boo déggee bis bi ñu ne daaru minam la rek dara jóg dara jóg li ngeen ma dénk li ngeen may wax nag xaw naa cee lot xaw naa cee tuut waaye nag comme ndigal la rek ñu jiim ci di ñaaxaar rek sama mbokki taalibe yu jigéen ñi ñu gën a fiddili suñu laxasaay gën a góor góorgóorlu gën a takkaay te xam ni lu ñu am yombut suñu njàmbaar mayuñu ko suñu pas-pas mayuñu ko suñu doole mayuñu ko ndimbalul yàlla lañ am ndax ndimbalul yàlla moo waral ñu bokk ci liggéeyub Serigne Touba te man mbubb mi ma sol boo xoolee yaakaar naa ñi ko fi sol bëriwut waaye man yàlla dama boole ci ñi nga xamante ni suñ borom dali na dimbali rek ñu bokk ci wàllu daayira mbuñ mi ma sol waa axlu tayribiya ñoo ma ko jox ña nga ne ca waañ wa ñoo defar kafe gi ak meew mi di dalal di dalal gan ñi lépp loo xam ni xew na ci dëkk bi ci lu baax su ñeneen ñëwut rek ñoom ñoo ñu fay teewal laliltu xaddar ñoo fi fanaanee jàng gàmmu noonu bis bu baax bu mu nekk rek dinañ ñu ko màggale ñoom waa axlu tarbiya man nag jàpp naa leen te duutuma leen bàyyi def naa leen kóllëre te yal nañu yàlla ak sëñ Tuubaa Mbàkke boole ba yow mal xiyaam maa ngi ñaanal sama mbokki jigéen yi nag suñu borom kàttanal leen dooleel leen ba liñ bëgg ci yoonu sëriñ Tuubaa nu man ko ndax ànd nañoo góor ñi waaye jàmbaar lañ bu dee cotisation ñoo njëkk a matal bu dee liggéey keen du leen te jiitu loo leen woo ñu wuy si la man nag sant naa ndax tuuti naa lool wax dëgg yàlla ma sama maa fi nekk ak sama yaay ak samay bàjjen terew ñu jël lépp teg ko sama loxo xeebuñu ma fakkasaluñ ma di ma jàppale moo tax lii may wax mënuma ko waaye dinaa ko jim. siyaare bu baax di rafetlu seen teewaay bu baax a baax a baax di leen xamal na rek lii dañ koo def ngir sant Serigne Touba. bis bi nag ñoo ngi ko dara jaale Serigne Issa Dieng muy màggal gu mag ñu def ko ren di ñaari yoon yoo xam ne ñoo ngi ko amal fii ci Daaru nam di dëkk Serigne Mountakha Bassirou ci jamono ji ñu toll ñu ngi leen di rafetlu seen teewaay bu baax a baax di leen xamal nag ñun at mu jot ñoo da nekk ci wàllum café geek comme yu mel nii ngeen fiy gis ñoo ciy taxaw ñun at mu jot ñoo ci ñoo ciy taxaw euh, taxawee ci bépp fas boo xam ne rek séntu nañu ji ñu waa ñu ñu fas yéene daw ñu fas yéene daw bu baax a baax baax lii nag bu ngeen gisee kii ñu sol nii dafa am association boo xam ne ñooy def ñoom la ñuy wax ahlu tarbiya ñoom ñooy ñëpp këpp koo xam ne jaaree nga fi e, ci wàllum tarbiya daan fi liggéeyee di liggéey Serigne Touba ñoom ñoo dem booloo boole seen seen doole ñëw def euh, tise yi donte bëriwul sax waaye ñu feeñal seen yére ngir bu ëllëgee ñu gën koo man ba nga xam ne maanaam lépp lu ñuy doxal ci dëkk bi lu baax rek ñu jëm ci dugal seen loxo ci bépp fànn loolu daal moo ñu moo ñu moo ñu bàyyi fii ndaxte comme que fi lañ doon wutee lu baax ñëw amee ko fi saa bu ñuy def lu baax rek dañoo war a ñëw jàpp ci dañ fay ñëw nag fas yéene liggéey ci café gi ak lépp loo xam ne lu jariñ société bi la ci biir dëkk bi ñu fas yéene taxaw euh, lépp lépp lépp luy luy doxal dëkk bi rek fas yéene fas nañ ci yéene dox sarjo Daaru Minam ne man maay président daf ne suñu taxawaay waaye def sama premier ministre kat ndax liggéey bi nga bëgg ci Daaru Minam yow yaa ma ko mën a liggéeyal ndax man li ma man mooy dem lijjanti ji andi ci dëkk bi Sëriñ Muntaxa nangul ko loolu ne ko waaye may itam day naa samp sama ministre ah bokk ma mel boobu bi ñu ko ko joxee Sëriñ Muntaxa moo wax ne Baye Cheikh Cissé dañ ma dox koo yore ñu ne ko lu tax mu ne pas-pasam ak pas-téefam yaakaar na kenn ra kenn nattabliwu ko def na ci daf ci war a def lépp mu ne waaye ministre bi mënut a ñàkk ñu am kuñ dénk suuf si ñu ne Baye Assane Ndiaye te yooyu jamono moom lañ dénk suuf si mu ne waaye dëkk bi day bu yàlla dogalee ñu ñoral li ñuy bay faaw ñu bëgg fu ñu koy jaayee bu ñu jëndee kopp itam te yooyu jamono ñu ne Baye Bàcc Njuub moo ko yoroon waaye ñu ne xaalis nag boo ko amee te dëkk ci ab góor nan nga koy def Serigne Mountakha ne Serigne Moustapha am naa sama mbokk moom taalibe moo xam ne day ku ma déggal la te dëkk bii de soxla nañ koo xam ne te fi indi marchandise moo xam ne ak ñu amee xaalis ñu dugal ko ci wala ñu jaay mu jënd ko mu dem jëli bàyyi àlla ci seex indi ko fi mu def bitig boo xam ne wax nañ ne lépp lu ñuy jaay ci Ndakaaru ja yooyu jamono boo ñëwee ci bitigam bi boo yoree ngir da ko yóbbaale bi sëriñ Moustapha jógee ci loolu ci ministère yi mu ne Baye Ndiaga moo yor wàllu yi gan bu mu am lépp lu am ci xeetu xéewal moom mooy yor xeetu xéewal yooyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di leen ziyaare bu baax di leen ndokkeel itam. di ñaan yàlla sunu boroom subhaanahu wa kilifa gi nga xam ne moo fi dëddu dem ci dëkkaale ak boroomam. muy a Cheikh Sidi al Muxtaar yal na yàlla yokk leeram te dolli ko xéewal ak tawfiq di ñaan itam aji wuutoom ji suñ boroom dolli ko tawfiq ak kattan ba yaakaar ji yàlla def ci xoli jullit ñëpp sun borom àggale ko ci moom di jégglu bu baax di doglu ngànt ci yëkkati ay kàddu ci sunu kanami kilifa ndax dañu koo miinut xëy na wax ji mën naa bañ a gudd ndax du bari du yàgg dañoo wax ne rekk bis koo ko tuddee war na caa am cëru boppam ñu waxoon ne dana baax ñu xamle lenn ci alaqaat relation yi nga xam ne moo yàgg a dox ci diggante dëkk bii wala boroom dëkk bii ak boroom dëkk bi nga xam ne moom la ñu tudd dëppee bis bi ngir nit ñi gën cee yeewu ndax ku ne xam na ne ay nit ñi ngi xam ay turi nit di xam fa ñu juddoo te ñooña dëkk ci ay barab yu sori lu bari ci gone yi tey yi teew fii boo leen laajoon ñu bari ci ay fokat danañ la wax nañu tudd wax leen seen turu ndey wax leen seen turu baay yaakaar naa nag loolee buñ ko dee xam ci sunu kilifa yu baax yii la gën a yelle ki nga xam ne moom lañu ñu duppee bis bi di nit ku baax ku ñëpp xam walla ku ñu bari xam ñu di ko wax sëriñ naar jenn di doom ci Cheikh Mouhamadul Amin Baara jenn ibnu sëriñ Xiisa jenn ñu gën koo miin ci boroom njenne ak lagan waaye loolu lu yomba gàttal la ndax ku xëy na ñu bari ci jotaay bi fekkewuñu woon jotaay bi ci biir waaye suñ ko fekke du ko jar ndax suñuy kilifa waxoon nañ ci lu doye jàpp waaye ñu xamle rekk ne ku ne xam na ne sëriñ Xiisa moomu ñu tudd nekkoon jàmbaari lislaam joo xam ne ab liggéeyam ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu baree bari xam nañu ko moom sëriñ Xiisa moomu way juramu góor tuddoon Cheikh Ibrahima Jenn ñu xam ko lool ci fés ci liggéeyal sëriñ Touba moom mi ngi gane woon àdduna ci at mu ñuy wax 1864 moom Cheikh Issa Diène ak maganteem su réewut ak maam Thierno Birahim waaye dund ci juddoo woon ci dëkk bu nekk ca Kajoor màgge fa jàng alxuraan comme niñ ko baaxoo xamee ci doomi soxna yu bari waaye yàlla suturaal ko bi mu demee ba xàmmee ci jamono yoo xam ne xëy na soriwul 1888 nga xam ne booba sëriñ bi mi ngi Touba ci diggante boobu ak diggante 1895 nga xam ne ci la sëriñ bi génn ci diggante boobu la yàlla dogal mu gàddaay fekk si sëriñ Touba Xaadimu Rasuul liggéeyal ko la mu ko liggéey ba am ca may ga mu ca am kooku mooy maami kii nga xam ne moom lañu ñu duppee bis bi muy sëriñ naar jenn dana baax ñu fàttaliku leen tuuti ñu xam leen xam dara ci seeni réalisation ci àdduna xam dara ci seeni jikko ngir ñu mënees leen a roy lu gàtt lay doon ndax ñooñu ku ñu ci tudd rekk mu doy sëkk ab taarif ab xamle ci jëmm ju tedd jooju waaye sëriñ naar yàlla dogal mu juddoo ci famille boobu sëriñ Issa jenn di maamam Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne mooy taawu Cheikh Issa jur ko waaye mu kon mu doon doomi ay murit moom dafa lañ doon wax ci Abdullah ibnu Omar dafa mel ne daf koo dal muy koo xam ne dañuy wax ne ab saxaabiyu la baayam di saxaabiyu maamam di saxaabi yu loolu moo daloon saxaabi yu boobu waaye moom dafa mel ne sëriñ naar loolu daf ko dal ndax bu ñu xoolee ay atam soriwul 1917 kon day mel ne fekk na fi sëriñ bi te dañuy wax ne ku dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa ci ak dundam te fekke ko manees na laa limaale ci ay saxaabaam kon buñ ko doon lim dañuy wax ne ci magi sëriñ bi la bokk ndax fekkee na dunduk sëriñ bi waaye way juram itam juddoo ci yoon wi waaye baayam itam maamam itam nekkoon ci yoon wi kon moom mën nañoo wax ne saxaabi yu la ci sëriñ Tuubaa baayam di ab saxaabi yu maamam di ab saxaabi yu loolu xusoosiya la waaye yemul ci loolu ba mu juddoo yitam mu jaar fi doomu soxna yépp baaxoo jaar ci am njàng waaye ñu tarbiya ko itam waaye li gën a yéeme li jafe ci nit yi léegi mooy def loo xam ne say maam defoon nañ ko muy liggéeyal yàlla tarbiyewu jaar fa mu war a jaar la lañ doon nawe ay maamam ci lislaam mu def ko ba àgg ci lañ defoon ci ak njàmbaar ba samp ay dëkk mu def ko ku ne xam na ne li waral dëkkaale gi muy diggante daaru minam ak lugan lugan moom sañcu boppama doonte tuubaa Ndiène ne sañcu ma kon loolu ba tey ci ay góorgóor loolu la bokk ak dëkk ba ñuy wax Lansar mu nekkoon ku rafet jikko nekkoon ku tabe lool nekkoon itam lu jafe ci sunu jamono ji ku mënoon a wàcce boppam te yàlla yëkkati ko waaye nekkoon itam ku fonk Serigne Touba ak njabootam kon nekkoon itam di jàmbaar joo xam ne ku ñime woon la addiya lool ñime liggéey sëriñ Tuubaa lool ñime ab coono ci jëmmi boppam lool te yàlla tax kon loolu lu tuuti la ci géej lu tuuti la lu ñuy tànqe ci géej gu yaatu waaye ñu xam ne jëmm jii di sëriñ naar nga xam ne moom lañu ñu duppee bis bi tey njaboot gu tedd gi teew fi teewal ko fi nga xamante ni ñoom la fi seen kilifa yabal te Cheikh Mahamadul Fadil mii jiite ko comme ni ko sëriñ bi waxee woon ànd ak mag ñi ñëpp Cheikh Ibrahim jenn ak mboolem ñi topp ci ginnaawam ñu xam ne jëmm jooju daal fesuk ay jikkoom yu rafet ak fesuk ak mbaaxam ak fesoon ci liggéeyal sëriñ tubaa ak ñime coona ak doonoon royukaay ci yoonu murit moo taxoon ñu di ko fàttaliku ngir bëgg gone yi fàttaliku ko xam ne jëmm ju mel nii jaaroon na fi ñu mën a gëstu ci ay mbiram mën a roy ci ay jikkoom kon duma ci xóot di ci gàttal waaye damay wax rek ne moom dafa bokk ci ñi yàlla taw feexal la nga xamante ne nii mënoon nañ koo wax ci ay maamam loolu yàlla taw feexal na ko ñu mën koo wax ci moom te buñ fàtte ne maamam ju tedd jooje di si moom ku siiwoon la ci mbooleem jikko yi ma wax waaye moom itam fa tabaarakallaahu ku siiw la ci jikko yi ma wax damay wax rek la waykat ba waxoon ca maamam ma jàpp ne yell na ci moom ne xaazal mafaxira xiisa jann zu karamin wa faasa bil xulbi war ridwaani bil xidami xubbul xadiimi wa misbaaxu tariqatihi bihi stanaara liman yam sii bila zulami waykat ba dafa waxoon ne seeyi saade mooy ki nga xam ne làq na ay ndam ak liggéey ci sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul bokkoon na ci làmp yi sëriñ Tuubaa taal comme ni nga xamante ni ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dafa waxoon ne ashaabi kan nujuum waaye bi ay himuq tadaytumu tadaytum yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dafa waxoon ne samay sahaaba day ñëpp ay biddiw lañ bu ngeen ci roy rek dangeen ngeen gindiku waaye Serigne Touba itam ba mu dikkee te yàlla def ko muy ak leer goo xam ne ni nga xamante ne ni bu ak leer tàkkee ci digg ak lëndëm noonu la mboolem jaa yàlla yi nga xam ne yàlla daf leen a bind ñu sàkk leen ñu bëgg ay leer dañuy naaw di di biiw leer googu ba yenn yi sax di ci loru lu mel ne ab làmp bu tàkkee ci diggu lëndëm da nga gis gunóor yëpp di daw di ko wuti sëriñ tubaab bi mu dikkee di làmp bi suñ borom subhaanahu wa taala taal noonu la meloon ci àdduna mboolem ruux yi nga xam ne dañoo bëgg yàlla ñëpp dañoo naaw wuti ko comme ni ay gunóor di naawe di wuti ab làmp ruux yooyu nag ruux jëmm ju tedd ji ñuy waxtaane muy Asiya sa jenn wala ñuy waxtaane ab sëtam te manoo ballaloo ci moom ci ay jikkoom la cee bokk moo tax ma barkeeloo bayit yooyu nga xam ne moom la waykat ba waxoon ci maamam ne xubbul xadimi wa misbaaxu tariqatihi bihi sanaara liman yamsa bila zul yamsi bila zulami daan ne woon fatan adibun aribun muuxisun yaxisun barrun karimun jawaadun muxjilun diyami rabbal jifaani allati daban qadim talaat bil isri wal laxmi wal axbaasi wad dasami wa bi mataaima anha kulla mafqaratin bi dabaxi bi fi li dayfi min xurbin wa min ajami yooyu nekkoon ay jikko yoo xam ne moom mii nga xam ne ci doonte ci Cheikh lañ ko wax waaye moom mii ñu jamonoonteel gisoon nañ ci moom jikko yooyu muy ku bëgg Serigne Touba ku doon dox ci lu jëmmal yoonu Serigne Touba waaye di woon ku ñu tarbiya muy ku am adab nekkoon ku baax nekkoon ku tabe nekkoon koo xam ne ku mënoon a sonn la ci joxe ay ñam lool te jëmm yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba tax loolu duñu ci guddal lenn la rek ci ay jikkoom yoo xam ne bu ñu ko toppee waxtu wi du ko maye waaye dafa baax ñu bu ñu waxee nit ñu wax dara ci ay jikkoom ngir ñi nga xamante nii ñoo koy dégg te mësuñu koo xam mën a gëstu kooku mooy kan mën a roy ci ay jikkoom kon ci baaxam googu ci relation boobu ci góor góorlu googu ci topp Serigne Touba ak di jëmmal lu baax loolu moo waraloon ak rafetal dëkk goo xamante ni amoon na ci diggante bi tam nekkoon kilifa gu daan boole lépp lu lu masoon a yàq lu mu ci man mu di ko defar loolu moo waraloon ñu moo màgg comme ni ko si Ibrahima Jenn waxe léegi ci témoignage yi kon loolu du jar ñu ciy dikkaat bu ñu ko gëstoo danañ ko xam ñu xam ne daal nit la ku baax nituk lislaam la murit saadiq la woon koo xamante ni kuñ mën a gëstu la kuñ mën a roy ci ay jikkoom kon foofu lañ koy gàttal rek ngir bañ a jël waxtu wi ngir guddi na ba noppi te bu ñu fàtte ne kilifa yi dañoo war a delluwaat ci barab yu sori kon ñoo ngi baalu àq ñëpp te xam ne lu ñu ci yéene woon a wax ëpp na loolu waaye nag jamono ji moo xat li wérte wóor daal mooy ni ñu def ba xam ay nit ñu sori ñoo xamante ne nii ñi ngi ci ay dëkk yu sori bu ñu ko defee ba gëstu suñu mag ñi danañ ca xam loo xamante ne nii danañu doy sëkk jàpp danañ doy sëkk roy kon lii moo waraloon sababu ñu gëstuwaat bëgg gëstuwaat mag ñi bëgg ñu fàttalikuwaat li ñu am moo waraloon ñu tànn kenn ci mag ñooñu muy sëriñ naar ngir bëgg ñu fàttaliku ay jikkoom ba gone yi nga xamante nii xamuñu ko woon ñu mën a fàttaliku kooku roy ci ay jikkoom kon lii daal mooy li nga xamante nii moo taxoon tudde bis bi jóg kon ñoo ngi koy taxawal foofu di jéggalu bu baax a baax ci gàttañlu gi di jéggalu sunu kàddu yi ñu yëkkati sunu kanami kilifa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbooloo mi ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu kilifa suñu baay maam nu Mbacke. di nuyu su préfet Ousmane Sané mi nga xam ne moo jiite délégation bi ak Abdoul Aziz Badiane adjoint di nuyu kilifa gi nga xamante ne si ni moo fi teew ci turu waa kër sëriñ naar jenn muy sëñ Fallou jenn ak Baye Iba jenn ñoom ñu àndal ak euh, Baye Ngañ ak mboolem ñi nga xamante ne si ni ñoom lañu àndal di leen di nuyu mboolem sef de village yi nga yi nga xamante ne si ni teew nañ fi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu di la ziare eh, ci ak délégation bi nga xamante ne si ni moom nga àndal eh, di ñaan comme ñi nga xam ne ñoo fi jëkk a jël kàddu noonu lañ ko niñ ko waxee kilifa gi nga xamante si ni jóge na fi muy sëriñ Sidi Moxtaar yàlla na ko saaboroom yéege ci àjjan yi gën a kawe te taasuñ ci barkeem ki nga xam ne moo wuutu ci liggéeyu seexul xaddim bi ci am na Bamba muy sëriñ Muntaxa Basiru yàlla na ko saaboroom borom téeñal jàppale ko ba lépp li nga xamante ne si moom la am ci mébét ci yoonu sëriñ Tuubaa ak lislaam bi suñu borom def ci lu kaw njortam di am contentement ak mbégte di rëylu bu baax a baax cër bu rëy bu mag bi nga xamante ne si ni moom ngeen ñu jox ci biir euh, euh, ndaje mi ndax it euh, fii jàpp nañ ne ci daayira bi lañ bokk ndax daayira bi bu ma juumul maam na mii toog mooy ki ñu joxoon tur muy iraada wal imma te mu nekk daayira boo tur woo xam mu nekk loo xamante ne si ni yaakaar naa ne lépp lu ñu ko duggee rek mënees na caa am yaakaar ndax mooy bëgg ak yitte kon tey bu ñu defee lu mel nii jàpp naa ne tur wi wuyu na boroomam di ñaaxaat ñi nga xamante ne si nii ñoo ci bokk ak fu ñu ci mën a nekk rek ñu xam ne nekk ci loo xamante ne si nii a ah, li nga war a nekk la moom dana nekk loo xamante ne si nii lu am solo la ndax dana dalal xelu kilifa yi nga xamante ne si nii eh, ñoom ñoo ñu jiitu dina nekk loo xamante ne si ni tamit dina encouragé képp koo xamante ne si ni nekk na ci sa gannaaw te war a roy ci yow di kontaan bu baax a baax ci ñëpp ñi nga xamante si ni bokk nañ ci commune bi fu ci waay mën a nekk parce que gis nañ nit jógee na fu nekk tey ci biir commune bi kon tey événement bi nekkul événement wu dëkk rek mais événement wu commune bi yëpp la génn na sax commune bi parce que gis nañ fi ñoo xamante ne si ni jóge nañ ci fépp ci biir département bi ba ci région bi parce que tey ci suba euh, commandant gendarmerie ñëw na sama kër tey it yëgoon naa ne ñoom yóbbu woon nañ fa benn yëgle boo xam ne si ni xam nañ ne tey jii nii am na événement bu mel nii bu war a xew Daaru Minam tax na ñëw nañ siyew na nañ fépp ci biir euh, commune bi pour sécurité ak pour fexe nit ñi li ñu bëgg a def ñu def ko ci dal ak jàmm kon sëñ bi duñu guddal ñoo ngi yeesalaat suñu taalibe di yeesalaat suñu jofeel te xam ne euh, Daaru Minam de lépp lu ci nit def muy lu baax rek jàpp nañ ne ñun la war kon lu ci nit def rek ñun la ko defal ñoo ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di feddali vraiment suñu kóllëre di feddali suñu cofeel ak suñu taalibe di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne si ni yëkkati nañ ko ci kanamu kilifa yi jërë ngeen jëf. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu te di siyaar ci turu président Cheikh Ndiaye président conseil départemental bu ma Malem Hodar di la nuyu ci turu. honorable au conseil collectivité territoriale sa xarit El Omar Dieng mu amoon yéene teewee si bis bi ndax diggam ak yow ak diggam ak waa dëkk bi ak niñ ko jàppee ak niñ ko jàppale ba biñ ko jàppee bu njëkk dafa ñëw ay nu maan bëgg yendu bu ngoonee mu ñëw teewe màggal gi ànd ko ak ñoom yàlla suñ borom dogal xew-xew bu mag boobu fi amoon tax ñu toxal bis bi loolu moo waral tey teewewu ko waaye yéeneem ak bëgg-bëggam moo doon ñëw teew fii ànd ko bokki ak xarit yi ak bokki taalibe yi ndax moom kër gi taalibe la fi mbokk la fi lépp la fi rawatina sa diggante ak moom rawatina sa diggante ak njaboot gi muy diggante bu rafet boo xam ne mën naa koo seere ñu yebal ma moom ma ànd ak sëriñ Mbay Ñang ak Mbàkke Saar ñoom ak Baay Mor Jaañ ak sëñ Mur Seen Ñang chef de village Jaaga ñu ñëw teewal ko fi ànd ak borom dëkk Seex Njóogu kàddu gi nag day doon loo xam ne dama ko mënut a ñàkk a jël ngir liñ ko tuddee conseil départemental te ma teewal leen fi moo tax ma yëkkati kàddu waaye du sama jëmm laa ko yëkkatee ndax maag daa daayira bi ñoo bokk daayira bi doom laa fi njaboot laa fi taalibe laa fi te ñi ma koy yëkkatilit ay bokk lañ ay taalibe lañ te ci kër gi lañ dëkk kon nag ñi ngi sant xale yi bu baax a baax ci taxawaay bu rafet bii ndax kenn ku ne yaa ngi woote bis kon ñoom bu ñu wootee sant Serigne Touba rawati nañu tuddee ko jàmbaari lislaam koo xam ne ak taalibe ak murit la ñu roy ci moom muy Serigne Naar Dieng kon loolu sant yàlla bu baax a baax ci wax gannaaw bu nu santee yàlla julli ci Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kàddu yi nga xaayante ni moo jëm ci sëriñ Sidi moo di kàddu yi nga xaay moom leen leen di jottali ci gàttal ndax li nga xaayante doon nañu ko jottali ci diggante sëriñ naar ak yoon wi nga xaay moo fi ne di yoonu sëriñ Touba. ak ñi nga xaay ñoom la fi sëriñ Touba bàyyi woon ni mu jëflante ak ñoom ba yegg si fi nga xaayante ne bii yàlla dogal na tey jii sëriñ Sidi dugg ci boobu moom la ñu bëgg a jottali ci mbirum sëriñ Sidi sëriñ Sidi nag yàlla dimbil ne ko dimbal loo xamante ne bii ko xam boppam la ndax yàlla dogal na li nga xamante ne bii sa borom dogal na mu nàmp ko mu di ak taalibe kooko donn na ko man mii nag di waxtaan ak yéen xam naa ci loo xamante ni sëriñ sii di waxuma ko waajuram wu ñu tudde bis bii di sëriñ naar moo ma ko wax ci sëriñ sii di moo xamal ne ma man ak moom ak yàlla rek nu wuwu fi sunu barab mu xamal ma ne ma jamono boo xamante ne bii Ibrahima ma ne ko jenn mu ne ma am na looy xalaat de ma ne ko waaw waaw firnde ba mu yëkkati woon jox ma ba fii ne maa ngi ko denc mu ne ma na nga rafet njort bis boo xamante ni bii dox nga ba yàlla dogal na tegatoo ma bët bu keroogee dana fi bàyyi koo xaay kii dana mat sëkk mu doon ma am na xamante ni ci tàngoo ci mbirum murit dikk ci man ma nee ti tekk mu ne ma su boobaa na la wóor ni sama dara du fanaan àll ngir sëriñ siidi kon nag bu nu demee ba yàlla dogal ñu duppee bis bii waajuram mu teew fi teewlu fi la nga xamante ni bii moom la war a doxe dara manqué wu ca loola sama xel dana ca dem su sama xel demee nag wóor na ne man sama bopp danaa am ci sama biir looxaa yi ak jaxasoo la boo xamante ni bii loola sax na ma leen ko war a mën a leerale loola dana ma wump waaye bàyyam waxan ma ne ma boo ma gisatul na la biir ni dinaa fi bàyyi loo xamante ni bii dana ma sëkk la mu doon kon bi mu ko fi bàyyee nun war na noo sant yàlla bu baax a baax a baax ndax baayam lépp loo xamante ni bii lu mu doon ci sëñ baara da koo ñoroon xom sëriñ siidi miit yàlla dogal na lépp loo xaaye lii lu ñuy tudd di ci tudd sëñ naar ak nu mu mën a demee ñor na ko xom ñaar ñii nag dama leen di leeral nun ñëpp ay wolof lanu dégg na lu wolof soo demee ba jëm pénc nga wàcc fa ab yoor yoor ñaar ñii am fa ki nga xam ni yow mii yaa ko seet ba tuddee ko doom ak ki nga xaaye moo seet ba tuddee la doom soo taxawee ca pénc ma wolof daa léem ni ñoom ñaar koo ci war a yendu li ki la tuddee doom ji nag moom nga war a dem yendu ji ak moom mu di ki nga xaaye moom nga yaaw yow yaa ko tuddee doom xay na lee man ngeen a dem a dem a dem a dem ba yàlla dogal ngeen séq tur wa waaye ki la tudde doom moom xam na la nga xaaye xool na ko ci yow ba tudde la doom ji mooy bis bii tey bis bii bu ñor sëriñ Sidi la gis naa ci moom it loo xamante ni lii booba tuut tànk la man booba maa nga kajoor sëriñ Sidi nekk fii may waxtaan ak baayam mu xamal ma ne ma Sidi moo ma jox addiye nangam te man booba yaakaar naa ni sëriñ Sidi warta mën a am sax ñetti junni ba yàlla dogalee mu wax ma loolee ba fii yi nga xamante ni bii te gisatuñu sëñ naar loolee lu muy yokk la waaye du ko wàññi li ma leer ni yii de moom teel na koo xam te teel nañ ko koo xamal mooy yoonu murit yoonu murit nag ab yar ak i teggin ak fonk yoon wi ak joxe alalam sëriñ siidi képp koo xaye ki yàlla dogal na nga xam ko wóor na ma wóoral yàlla ni ci loo ko wonk lu mu doon du doon ci alalam du doon ci dara jaam du dara moom mat na sëy naari jenn sëkk sëkk sëkk sëkk yàlla nag am na lu mu ko baaxee loo xaay liitam danaa leen ko leeral fii sëriñ siidi ku mu maaseel na la leer ni su manee dalaa gën ay rakk ay rakkam yu baax lañu man xam naa leen ay rakkam xam nañ ma ndax kenn ku ci ne ba ngay gane àdduna fekk nga ma laxasoog sa baay ay baat kon xam naa leen bu baax a baax a baax sëriñ siidi ku baax la ku gore la ku maandu la ku bëgg yoon wi koo xam ni kiit ku ko roy danga dem sëñ siidi baax na lool ay rakkam baax nañu lool lépp la sëriñ naar bàyyi woon day gis naa ñu di ca def loo xaayante ni bi kenn ku ci ne yaa ngi ciy jëf sa kem kartan fab sa yéene teg ca yal na yàlla ak yonent bi ak Cheikh Al Khadim dimbali ba loolee nu jëmee ko kanam ci barki Serigne Touba nuy ñaanet ci darajee Xaadimul Moustapha sans borom mi nga xamante ni mooy yor ndimbali te ku mu dimbali nga am ndimbal yal na nu dimbali ba bàyyi nu fekk sëñ mun bandi ko weer ak a weri ak njabootam gi ci barki Serigne Touba loolu daal laa mën ci leen doon jotal. ci bis bii ne auzu billaahi min seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi alamin ginnaaw loolu ñoo ngi musut seytaane di sant sunu yàlla sunu borom di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di sant sunu ñaari waajur ginnaaw loolu ñu ngi ñaali sëñ Siidel Moxtaar mi nga xam ne moo fi jóge barki démb saa borom yokk ay leeram te taas na ci barkeem ki nga xam ne moo ko fi wutoon di sëriñ Muntaxa saa borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool suñ kanam yàgg si ginnaaw mu yàgg ñoo digal ñi def mu yàgg ñoo tere ñuy bàyyi ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbooloo mu fi teew ñëpp <coughs> eh, di ci jiital nuyoo bi nag sëriñ Thierno mi nga xam ne moo fi suñ jëwriñ ñoo ngi koy nuyu baax a baax du nuyu ñi nga xam ne ñoo fi jot teew muy dëkk yi nga xam ne ñoo wër Daaru Minam ñëpp gis nañ seen teewaay ak seen taxawaay bu baax a baax kon ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu baax a baax te di leen siyaar leen wax ne gis nañ seen taxawaay gis na nit seen teewaay bu baax a baax a baax daldi sax wax ci moom mëntoon a ñàkk waaye defi li ci ëpp ñu jàll wax nañ ko kon maa ngi jégaloo kàddu yi nga xam ne maa ngi fay jot a jàllale néew naa ci lool lot naa ci lool waaye nag ndigal moom caabi la rek su ëppee du ubbi su yeesee du ubbi moo waral rek ñu sànni ay kàddu waaye tuur naa ci lool lot naa ci lool ginnaaw loolu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoo fi jot am lu nu fi jot joxe ci wàllu cant gi xam naa sax du mën a lim ñëpp waaye tàgg boo gis du ñàkk jàppal diw waaye ñi fi def ñëpp def nañ seen wàll waa dëkk bi ñëpp def nañu ci seen gëm kàttan xam naa dañ ci jiital rek sëñ Ceerno mi nga xam ne mooy suñ jëwriñ indi fi loo xam ne yaakaar naa mën naa taxawal bis bi kon loolu ñoo ngi ko sant bu baax a baax di ko ci gërëm ñoo ngi sant ki nga xamante ni moom la tudd bis bi sëriñ Naar Jenn euh, sëriñ Naar Jenn moom itamit yebal na fi délégation sëñ Fallou Jenn jiite ko ànd ak doomam sëñ Naar Jenn ak sëñ Ibrahima Jenn ak Baye Ngañ Njaay ñoom ñëpp ñëw nañ ci bis bi kon gis na nit li nga xam ne moom leen fi jot a joxe ñooy ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax te leen gërëm su préfet jàppal nañu bu baax a baax di Ousmane Sané moom itamit jàpp na ci bu baax def na ci kem kattanam ndax ban tàmbalee te këyit ya ba fii mu toll nii mësu cee teggi loxoom dane woon sax moom bëggul ku koy wax ci yu mel nii waaye nag olof Njaay nee na ku def lu baax di wax ko kon moom it ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant it le maire Dame moom itamit wax dëgg yàlla kenn dému mu des gis nam loxoom def na ci loo xamante nit yaakaar naa mën a taxawal bés bi kon moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ah, Omar Diang yóbbante ne sëñ Modou si jox na ma ambaloom léegi moo ko Cheikh Ndiaye ñoom tamit gis na li nga xam ne moom lañ joxe ñoom bi ñu ngi leen sant baax baax di leen gërëm comme daal leen bëgg a wax lépp yaakaar naa mënuñu koo wax ndax dafa xaw a xat tey dafa xaw a guddi ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoom leen àndal liggéey bi muy jigéen ñi muy góor ñi muy mag ñi muy ndaw ñi ñoo ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm ndax ñoom suñu leen jóg leen ñu jóg suñu leen toog léegi ñu toog kon ñoo ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di santit waa dëkk bi ndax ñoom it wax dëgg yàlla jàpp nañ ci saa nu wootee ñu ñëw te it ñu ngi ci jàpp bu baax a baax kon ñoom it tamit ñu ngi leen sant te di leen gërëm daanaka moom bis bi sant la rek kon ñun sant rek dañ mën a def ñu ngi santit mbooloo mu fi teew yépp ndax sant la ak gërëm ndax ki nga xamante nii moo war a gi muy Sëriñ Tuubaa bi mu njëkkee bi mu jógee euh, gànnaar bi mu ñëwee euh, bi mu jógee ci tukki bi mu ñëwee dane sant leen ma yàlla kon moo tax ñu tudd bis bi ñu ko sant la moom itam yàlla wàcce na fi ay kaamil jàng na fi ah, ah, xasaayit tey ah, duus nañ fi tey fa dañ fi fas yéenee fanaane jàng ay xasaayit kon yaakaar naa cant la rek kon ñoo ngi sant ñi nga xamante ni dëkk ñi wër yëpp ku limul rek dunoo jum waaye ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dafa xaw a xat waaye ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu